fukki fan ci euh, mille mille neuf cent quatre-vingt-neuf ci weeru novembre lañu ñu sartal këyit bi nga xamante ne moom mooy wax ci aar àq ak yelleefu xale ci àdduna bi yëpp ci ay fànn yu ci mel ni euh, wàllu aada ak cosaan ak lu ci mel ni koom-koom lu ci mel ni wàllu politique mu nekk ay mbir yoo xamante ne munta ñakk ci xale bi ci màggaayam ci màggaayu xelam ak ci màggaayu yaramam sunu réew di Sénégal bokk na ci réew yi nga xamante ne ñoom ñoom njëkk a nangu dogal googu ci loolu la ONG bu ñuy wax Terre des Hommes Suisse ak ay partenaire am jël li nga xamante ne moom mooy article 13 bu convention boobu mooy charte bi ñu tëral pour aar ak ak yelleefu xale te article bi di wax ne xale bu nekk am na droit ci liberté maanaam moom boppam wax ay xalaatam génne xalaatam ci fànn bu mu munti nekk ci loolu ter des hommes ci atub 2018 la tëral benn conseil mébét yi nga xamante ne nag moom la conseil bi am mooy dooleel li nga xamante ne moom mooy taxawaayu jeunes yi maanaam ndaw yi ci aar àq ak yelleefu xale bokk na ci yooyu mooy taxaw ci aar doomu aadama yi ci li nga xamante ne moom mooy jàngoro yi coronavirus bi waaye tamit ñaax leen ci jëfandikoo bi nga xamante ne ñu ngi koy jëfandikoo xale yi bokk na ci ba tey tamit ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñooy waajur yi ak nguur gi ak képp koo xamante ne dafay liggéey ci wàllu état civil dimbale xale yi ba ñuy teel a jot ci seen état civil bañ ci bañ di ci am benn problème bokk na ci tamit ñaax ba tey Euh, ci jële bi nga xamante ne war nañ koo jëlee xale yi ci mbedd mi parce que ñun ñëpp xam nañ ne xale mbedd du palaasam palaasam mooy bërëbu jàngukaay ya ñu organiser itam ay waxtaan ci bërëbu taskatu xibaar yi waaye loolu nekk ci ay thèmes yoo xamante ne dafay wax ba tey ci lu jëmale kanam ak ak yelleefu xale pour ñu gën koo respecter. ñu rë ñu seetlu ne ba tey métital xale yi ak violence yi nga xamante ne ñu ngi leen koy teg ba léegi mu ngi wëy. di am ci loolu ñu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci nguurub senegal di ko wax ne nañu fexe ba jëfandikoo xarala yu yees yi ba nga xam ne état civil dootul mën a amati problème ci diwaanu ci biir Sénégal pour permettre xale yi ñu bañ di am benn problème ci poroblème état civil ñu gën a taxawalaat tamit euh, euh, pencub ndawu xale yi waaye tamit ñu continuer plan d'action bi ñu jëloon ci génne xale yi ci li nga xamante ne moom mooy mbedd mi ñu baral jéego yi itam ci tëgg benn projet bi nga xamante ne dañu waxoon ne dañuy moderniser daara yi loolu tamit ñu baral ci seeni seeni jéego ñu fexe tamit ba xale yi nga xamante ne amuñu chance dugg école wala sax dañu génn école peut-être dañ leen fa dàq wala leen ñu fexe ba dugalaat leen ci li nga xamante ne moom mooy formation professionnelle yi ndax ñu mën a am ñoom it ci loo xamante ne dañ ciy jàpp